jërë ngeen jëf maa ngi mën toog ak euh, surtout Seydou Hadj Malick Sy Ahmed miin ngeen ko ci sama waxtaan man ak moom ci Mame Ndokh TV tey nag ñu daje fii ci xadaratul juma bi nga xamante ni Serigne Abdoul Aziz Al Amine tabarakallahu moo ci joxe woon ndigal euh, euh, mbokkam moomu Serigne Fata Sarr Ahmed tey ñu daje fi nga gis mbooloo mi ni mu mel bi nga dugg see lan nga waaw sant yàlla rek ak yëg ne li yonent bi sallallahu alayhi wa woon. ne ida marartum bi riyaadil jannati fartau bu ngeen rombatee jardin àjjana dem leen ngeen for ñu ne ko yaa rasulallah wa ma riyaadul janna luy jardin àjjana mu ne xelaqu dëkkir mooy géewu ñu dajale dafa tudd yàlla xadara juma bu àdduna tukki bi su àjjuma lay doon te lay doon Cheikh Matiyaane na fekk samay nekk di xadara <laughs> doy war nga doon àjjuma ci la yàlla bi Aadama ñaari tur rek a am muy àjjuma ak samedi àjjuma ci la ñuy jaamu yàlla samedi ci la gaa yi foo di taxawaa li ci des yëpp ay bis la rek ahadun compte la la isneeni deux la muy sa altine salaasa trois la muy salaasa arab da ko yéemal si si aymaay nag ni ne kat la xadru fa adraayit uslubu cheikhina fa man chaa fal yumi wa man chaa ankara drapeau bi nee na naaw na ba pare ku mu neex gëpp ku mu neex bàyyi dama nabi ilaahi na fa inqitaa ilaa axdu ani cheikh xorira <laughs> kon nag aj yëkkati namu naa la <laughs> waaw su ko defee nag wax dëgg yàlla El Hadj El Hadj maa ngi dafa ne fal bay du min naa bi alfin woon fa xiimatal afrax laa talwa sunu kura nee na nen bi rek junni lay jaar nee na nag cuuj bi kenn du ko waxaale suñ baawa ngeen dafa bay dafa to baaw axi bi alfin xamaa leen far ay fii bay xen kilaamu waaye dafa am benn aaya alquran bu doy waar wa wasayna al insaana bi walidayhi ihsaana ba ci biir aaya ba maa rabbi awdi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya yàlla may ma ma nga ma sant la ci teraanga gi ma defal ba ma mën a am lii ma am ni tey te loolo Seydina Aliou nee na ci Seydina Aboubacar la ba mu ànd ak bi saasam ba yonent bi am ñeent fukki at la sant yàlla ne ko kii nga ma may ma di ko topp ba ba nekk ba ma ba bàyyiwuma ko ba yàlla def ko tey lim ko def tey yàlla may ma ma sant la ci loolu an ashkuli wali walidayk wa an amal salihan may ma itam mën a def lu baax tardaahu loo xam ne yàlla da nga ci kontaan kon nag El Hadj lii xadara juma bi kii dafa bokk ci tarixa bi lahu min al awraadi laadimun wa ma laysa bi laadimin ala man suwima fa laadimul werdu kadal wadifa wa dicre asr jumaati nazifa zicre ajjuma mooy ngoonu ajjuma gi moo tax yàlla nañu yàlla def taal bi si Cheikh Ahmad Tidiane moo tax Seydi Haaj Maalik dafa ni sadaqtu kullu wali laahi xaatibatan dëggal naa wàllu yàlla yëpp laakin waaye mu midduhum këlanta bu sax wa xusuwaati ni yow taalibi cheikh bi ne asabta jot nga jawfal fara jawfal fara faqna bi dalika wala tahris fa innal ghina naylu qanaat ñu ne ko luy fara mu ni moo gën a duuf ci rabu àll yi yàppam day fa jàngoro du matte du xuse boo jubee du daw boo bëma xee mu daanu sëñ abbas ni fa saydu ajmao fil fara ma daali saabiqina humul yetu xannaasi sa dox laakin ma dafirat yedu xaasi di tiyaam bi axlaasi ni cheikh mooy aynu ayni lu oyni oyna ayna xaysu laali oyna ayni lu maaw waaye li nga wax lan la tarixa bi rek <laughs> tarixa cheikh kon nag Eh, bokk ci nag sant yàlla la sëñ Babacar nee na fa kam unaasin te man na bi suluka ala uslubi himaa xadaaman xaalawatin bëri na koo xam ne bëggoon na nekk taalibe Cheikh waaye yàlla dogalu ko. bëgg na ko bëgg a nekk taalibe Cheikh. te yàlla ko te bi nag sallallahu alayhi wa sallam ba Jibril ñëwee daf ko laaj islaam ak iman ak lexsaan lexsaan la taree xawit doxal fexe ba ñëpp fexe ba ba boo ba ba boo gisul yàlla fexe ba yëg ne yàlla moom mi ngi lay teg bët. Mm-hmm. te nag yonent bi nee woon na jamono ngi ñëw ay nit boo demee ci téere at-Targhib wa Tarhib ci téere xadis muy wax ni jamono ngi ñëw ay nit tudd yàlla bu ñu suba toog di tudd yàlla ba jant fenk bu ñu julee tàkkusaan toog di tudd yàlla ba jant so mooy mel yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yaati ala naasi zamanu yazkuruna allaha ala fursin mumahada jamono ngi ñëw ay nit lal mbalaan di ca di ca julli boo demee ci téere naatul bidayat wa tawsifu nihaay bu cheikh maul aynayn ca hamish ba ma nga cee indi wax kon nag yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg taal bi Cheikh El def ñu lii muy teraanga di ñaan yàlla yàlla képp ku fi ñor yàlla na yàlla faj aajom bi bi ren jeunesse bi ñoo a bari waaw xam xam nga lu ko andi mooy yonent bi saasam dafa waxoon ne juróom-ñaar yàlla dana leen keral sabaatun yudilluhumullahu yawma laa dilla illaa zilluhu dana leen keral bis bu ker amul waxul nag eh, eh, ker lay fiir foofu zill mu ni lan bi ci njëkk mooy imaamun aadi imaan ju maandu wa shaabun nashaa fi abaatillah ak jeune boo xam ne dafa jóg pour so song yàlla looloo tax sëñ Babacar Si sëñ Haaj Malick ñu fexe ba ndaw ñi ñu yee leen wan ne leen ah ëllëg du añ waaye mat na sedd te tarixa bi nag islaam ndaw la gën a soxla mm. moo tax ñu sensibiliser ndaw yëpp pour lan ñu dell tax yàlla te dafa ne wa shabun ak jeune boo xam ne nashaa fi ibadatullah dafa màgg pour bëgg yàlla wa rajulaan tahabba fillah ñaar ñu bëggante yàlla tax ijtama alayhi wa tafaraqa fii ñu fi nekk ñëpp xamante wuñu waaye cheikh amat yàlla fi dajale wa rajulun tasadaqa bi sadaqati fa axfaaha hatta la taalama yaminuhu shimaluhu ma axfaa yaminuhu dem ba sadaxe ba càmmoñ a lu ndeyjoor joxe waaye rajulun zakarallaha xaaliyan fa faadat aynahu ak dafa tudd yàlla rek bëtam sotteku day li jooy fii kenn xamul luñ toll loolu nag suturaal foofa firiwul ker de waaye sutura fiir sabaatun yuzilluhum dana leen suturaal yàlla yow ma laa zilla bis ba sutura amul loolu nag boo demee ci téere adabul kaatib ca fekk muy firi lool ni zillu firiwul ker waaye ma ngay fili sutura mais am na benn secret bu ma ñëwoon sa kër bëggoo ma ko fii demee dimbalil jaami yàlla yi ah jaami yàlla yi sa yàlla tax dimbalil jaami yàlla yi